welcome back from that music break by Jambai. Yes, it's Jambai. So we're talking about abuse, young people's abuse of social sites. I mean, it's too broad. We can talk about the entire day. But then uh, we narrow it down to just young people because recently there have been so many, so many things, on, especially on Facebook and, and on Twitter, videos of, ah, I don't even want to go deep into that. It's just too too one, madam. But just one. Yeah, sure. <laughs> And when you talk of abuse of social sites, Teneng, mm -hmm. so you say, you know, social sites, mostly, especially in Sundekabi, young people know get involved. Mm-hmm. ndaw ñi ñoo si gën a involved ba lu luñ dee wax lu tax ñu ko waxee ne comme gars dañ ko dee abuse because dangaa gis koo xam ne dafa jël nataalam boo xam ne naka su dul noonu warut mu def ko foo xam ne nit yëpp ko war a gis mu def ko si place bu mel ni comme Facebook di bi yëpp adduna bi yëpp di si teg seen bët loolu dafa nekk la loolu xam ne mm-hmm. a seetaat la yaa moom it's just doy na waaru nga xalaat ñu am soo xoolee seen baagaam moom dégg-dégg good kër yu baax lañ jógee ba da nga gis ne taal nga def Facebook. Twitter and even Instagram. nga gis waaru kii kii la déedéet du doo ko dee mun a believe I know <laughs> ba pare ba pare da gis ne tamit suñ ne abuse da nga gis am na ñoo xam ne dañoo def fake profiles on Facebook. Mm-hmm. profile bo xamne nekut ñom ñeneen ñi dañoo wax ne man maangi dikka biir London fekk borom mu ngi dikka suma bor xëy na soriwu ma sax way ko Facebook nga gis ne mu ngi fa def ne <laughs> mu ngi dikka London just pour fake nit ñi that is very bad suñu ne social science pour na dañ ko ubi pour nit ñi mëna joko pour comme so sa nit su la sori nekk fu sori nga joko waxtaan ak mom bëgga jotanté mom mm. nga mëna joko ak sa nit ñi daal way nekut pour nga dem fa di nax nit ñeeg di fa def lo xamne naka sudut nonu di fa def lo xamne warut wala ñeneen def ko sa place pour hehe kay So basically, if we're to look at how social abuse of social networks or social sites occur, we'll look at certain things, and one of them is that people lie. People yes. lie on social sites. Ni dañ dee fen moo ko wuli yaa <laughs> fa jële manqué minti école faytol mo wala ci waatee mm-hmm. manqué wati mm-hmm. and mm. establish fake profiles and lifestyles comme dama jógee wax léegi nii rek nga fen nga ne yow yaay diw sàngam yow yaay nii yaa ngi dëkk fi yaa ngi liggéey lii te yow loolu xam nga ne lu nekkul ci yow yow sax oon na la li nga wax nii fen la waaye because yow yaa ngi Facebook bugga nga pour képp ku dem sa profile rek mu gis something big exactly loolu moo si dee dugal ñu bari mm-hmm. te loolu dafa nekk loo xam ne lu jara jara jara bàyyi sa xel la number three mm-hmm. hacking into user's account. Exactly. Nga into account, whether it's Facebook or it's even even Yahoo Mail, nga gis yeah, you hack. into the account, access the emails, is that the nyan, nyan, sa friends, also colleagues, yeah, mm -hmm. I mean, I've seen, man, I've, it has never happened to me, but I've seen people close to me that have gone through it, ñoo xam ne dal na leen. and they are complaining, they've been on their wall. wall di waaw di baalu ah yeah. ñeneen sax dañ dee pinda di baalu ah di wane ne am not ku doon use my account some time back. or last or last month. mu ngi uh-huh. doon ñaan sama friends yi or mu ngi doon saaga sama friends yi ñeneen just lay soo nekkee nit ko xam ne yow very comme nit yi dañ la xam lu mm-hmm, ñi xam nga yow dangaa nekk di binda mel ni yow yaay kooku noonu di xas ay friends sami mm-hmm. wala di leen di leen di leen ñaan xaalis wala di leen saaga ñooñu dañoo foog ne yow kii koy def ni koku la kooku la fekk yow yow keneen nga ngay jël account ci boromam yes and the next on the list is posting and downloading embarrassing pictures comme lu ma waxoon bu yàggut fii rek nga jël sa nataal boo xam ne mooy loolu nga jëf ko Facebook <laughs> pour àdduna bi yëpp gis la loolu daal fa naa ne war nañu am kersa si loolu te su ma ko waxee loolu gaal si ñoo ko dee gën a def bi boy si dañ ko dee def waaye ñi la gën a bari te si ñoom la gën a ñaawee ñoom la gën a ñaawee kay mm-hmm. ak jaaxaay noo ko way ñoom la gën a si jigéen la gën a bari yi li ndey use pour am gaaru waalante Facebook wala Twitter wala mm-hmm. WhatsApp di fa gaaru waalante di fa saagante nga jotee nit ki exactly nga jotee nit ki nga saat di ko bulli koo xam ne like nga jotee moom ñoom ne jotee gars yi sax am même problème waaye mm-hmm. just frustrated, borom mm-hmm. nañ ko email wala ñu binda ci wala mbolam bi su bon sa something really bad on their wall nga jiki jékki rek binda man kenn duma yapp te sometimes ñun ñëpp lañ jëlee Facebook sometimes ci si things loo xam ne it's very funny <laughs> comme na nga gis ko jékki rek bind dara si woolam man kenn du ma yeb daf laa oo ne kii am na ko mu joteel si corner bi outside Facebook waaye dafaa ñëw def ko Facebook ñeneen di ko gën a jàppale nag di ko laajte kan moo la bëgg a yeb loolu moo lay gën a tax ñuy gën a am motivation di def nga social sites yi defuñ ko foofu noonu pour loolu just nga ñëw foofu noonu ut koy xulóoyal wala ut koy xeexal mm-hmm. xam foofu noonu loolu daal ñeneen yi man xaw man naka laay naka la ok nga am dëj sa <laughs> mam, la see sa mam ganyo. balaa ñu ko dem sa nga jël sa phone bi wala sa laptop bi na Facebook. oh my god my grandmother just passed <laughs> away. but Tending, man, I'm not against that. Uh, well, come on. Okay, okay, you know why? Okay. I know you would tell me if you're really sad and mourning, why would, mm. when, how would you have that time to post that on Facebook that your grandmother is dead? I think we have a caller. Hello, caller. Hello, what's up? Hello, what's up? Oh, it's like we missed that caller. Yeah. Okay, we missed that caller. Come on, dan wax um, Okay, so fekkee borom mu ngi seetaan ba léegi mun ngaa try it on 4373910 910 or 4375905 comme noonu ko gisee seen screen yi rek. comme mm-hmm. te nag yaa ngi xëy na yaa ngi halat ne naka la borom di muna ame time boobu su fekke mu ngi am that feeling of sadness mu ngi mon mama gaañu na digala la xam nga sometimes eh. okay nañ dama call boobu hello what's up hello okay gis not that caller too Wow, but bu nga koy jaarale di sàcc crédit sa mbokk la ñu bàyyi leen di sàcc crédit sa mbokk la Okay. yeah hello hello oh. hello already mbijang okay ala programa betara kumara bak abaraka baraka bake ah an babe min ka be funding te ata kam mm-hmm. molle yama mhm karam bolo mhm to nya nyala ti dali ko fali to nya yo be te ko ba ko advice da do mandi mhm atu demu musoe mhm ile yin program sifa iba iba kela pour dunia nya bijira mhm. mhm. mol be bijira mhm ifa wala dress ni important la inganta min la mhm ngok my sister ni mike be ni mbuje la pare ni ni ko ngo ka dunna mol la mol ba ta no la pare min do nga fa ifa la dress ni na be program sifa ya kuma ta ba ta fa nan ay ay ala program ala pare jo lo ba ke abaraka ba ko ko to lan din do lo bari tuga kan min bawla si ajibe do ama jen ka malu Tanya, na tonya abaraka ba ajeri sorry se but aya la breaking, ni a kenya kare ya ya falina da yin program abaraka ba okay abaraka ah ito to di ma ani ka kol kana mo do to di adas na mo yan ito dun ani ka kol ke ke kana am fa juma min ah she's gone ah. Uh, okay, in Bakembare Muso, thank you for the advice. It will be taken into consideration most definitely. I uh, really appreciate it. Um, it would have been lovely. Near to formally Anika Korkan and Diamond for the back. Uh, okay, just getting back to the topic right As now. I was saying, oh, okay. Before that call came, we were talking about having your grandmother or your grandfather dead and then mm. just at that instant you want to post that on Facebook. Okay, hate na yo ding mo ding mane like okay, ding mane come okay, yo yangi am sa ko gañu. Fine. Yangi mourn, you are not happy. Nah mo na made that feeling. Put just a laptop be. Okay, it's like we're going for another call. Hello caller. Hello caller. Hello. Yeah, hello, what's up? Uh, Albanel. Mijandara. nga programme o biyaɗo baraka comme o musowo e men fo kama isela isela télé isela télé talaɗo mo ndin ok okay like kola ɗo wota men fo last time o musowo men kadiyamo no last time hello yeah hello ke moyle mm-hmm. uh, so ay men fa kummata baake because atel fana jijal pour que mool pic pour ka dindiŋol fanaŋ siloo itandin bot internet mm-hmm. programme mm-hmm. ye moo moo jaataata internet do wo lafta wo la toñaalum moo lafta men ne taabonni noo la mm-hmm. toñaal like this generation moo moo ni la siilim na so ite a siil kon intaata internet na tubaaboo sota en dahane ay na family dahane toñaalum so internet ye men ñenen kay e wo le kele